sant yàlla sant yàlla sant nañu yàlla waaw xam nga kenn bëggee ko tey boo xoolee ni ma bëree tey ak ma sen benn blessure laa doon bëree sama sama loxo dafa damm. barke billaahi wallaahi tallaahi sama combat mënoon naa ko reporté. déggoo la ma la si entraînement la sama loxo dammoon. ma dem ak sama ngor barki Seydina Mohamed dem bëri ci mënoon naa ne combat bi dama koy reporté combat bi yàqu mais def ma ko dama ci ñëw bëri sama loxo baa ngi gis ngeen nu mel. initiative yow musul mooy li ma la wax rek combat bi dama ci décidé woon dëgg mais sant yàlla baax a baax boo xoolee tey xam nga ne combat bi dama ci décidé